wàllum paj mi ak lu ñeel action sociale ñoo rek di nakaru ci noonee ñu tabee ay directeurs régionaux de la santé ak itam noonee ñu xaajale direction de la santé ak bu action sociale dafa salfaañe décret 2020 936 du 3 avril 2020 bi nga xamante ni tënkoon nañ lu ni mel ak i seen i njiit ba mu leer ginnaaw conseil des ministre bi weesu dañoo jël benn décision boo xam ne jàpp nañ ne bokkut ak la ñu juboo woon ak ñoom dañoo gis ne madame le ministre daf ko daggate daggate bi mooy dafa créer direction générale de la santé ci wet gee ca wet ga ca des mu créer direction régionale de l'action sociale loolu nag dañoo jàpp ne bokkut ak li ñu ñoom donc dafa ñëw violer accord yi nga xam ne moo tënkoon gouvernement bi ak SUTSAS. ñoom syndicaliste yi la ñu bëgg rek mooy nguur gi ak njiit yi saytu wàllum paj mi ñu teggi seen tànk ci accord yee ñu coppi lu ko mooy rek ñoom daañu def li war. ñu ne ndax li xew ci conseil des ministres bi président xam na bu baax fan la jóge ak li ko waral loolu lépp ma fi lim. daf ñuy won ne kat madame la ministre nekkut ci yoonu apaisement donc buñ jubloo buñ continuer ci perspective bi ah dinañ dem jëliwaat suñuy xepp def li nga xam ne moom la ñu ñëpp xamee te ñun fu ñu gësamee dana wadd te fu ñu gësëm dana yëngu ñu jàpp ne bala ñoo egg foofu dañuy ñaan président de la république son excellence mu xoolaat mbir mi te kenn ku nekk ñu jox ko wàccuwaayam conseil des ministres bi ñu doon amaale ñaar fukki fan ak ñaar ci wàllu sulet la jëwriñ bi ñu dénk wàllum paj mi daal di rek coppi accord bi ñeel l'érection des directions régionales de la santé et de l'action sociale bi nga xamante ni syndicaliste justice sasi dañoo xeex ba matal ko ci ndodd professeur Awa Marie Coll ba tax na ñoom ñu taxaw temm ngir ñu dakkal lu ni mel ba rek ñu gësam ba dakkal bile accord